ngeen jëf mbokk internetu BP Actu point com ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal tey vendredi 25 juin 2021 ñu ñëwaat ak yéen ci xibaaru revue de presse yi dañ koy daal di ubbee ak journalu Libération mu daal di fësal ci xëtamu njëkk li nga xamante ni moom moo di loi wu code pénal jëmale ko ci wàllum terrorisme bi tey nag lañ koy daal di voté fële na la ci diwaanu assemblée national ba tax na journal bi nee na bu ñu moytuwul lekk tey dina nekk vendredi de tous les dangers ndax opposition bi ak activiste yi euh, dinañu wàcc ci kaw terrain bi ngir fësal seen nakkat ak seen tiis waaye bañ bi nga xamante ni euh, dañ ko bañ li ñu nar a dugal ci biir euh, loi boobee. opposition parlementaire bi m ak waa Y'en a marre taxaw nañu temb ni bare nañu ngir euh, fësal seen résistance ci li nga xamante ni euh, dañ koy bañ Armirou ñu ngi yëkkati ci ay kàddoom nee na moom mënul comprendre lan moo waral opposition bi euh, participer ci travaux yi ba pare fas yéene def sortem actuellement jàpp na ni daal loolu désinformation totale la du système ba tax na wate ci biir journal Libération dañuy daal di desandi ak yéen brigade des mœurs de la sûreté urbaine démb nag yoon daal di nay teg loxo. ñaari feccikatu Wally Seck yooyu di wuyoo ci turu Amith Thiou ak Eumeudi Badiane ginnaaw ba ñu feccee ca kaw concert ba ba joxante bisu boobaak léegi nag sénégalais yi ñu ngi koy coow ñu ci bari daal dinañuy dem euh, porter ji plainte ku ci mel ni Karim Xurum Xakk ak Mame Mactar Gueye bu jam lawaari nag defoon na ci sorti di yëgle ni nañ ko génn ci wàllum góor jigéen bi ñuy naxasaale di ko jiñ artistes yi lu ci baree bare bare démb nag ba ñu jàppee ñaar ñi leen téye nañ leen garda bi waaye kàddu yi ñu ko yëkkati mooy lan que ni dafa nekkoon benn acte bu spontané dañoo fetti rek ba seytaane jëy leen waaye nekkul loo xamante ni dañ koy dund wala nekkul loo xamante ni tamit dañ cee bàyyi xel. maanaam mën nañoo jàpp ne bañ koy def daal conscient wu ñu woon ci seen acte waaye pecc mi moo leen yóbbaale woon kii nii di Wally Ballago Seck nag moom euh, yóbbaale nañ ko mais dañ ko doon euh, interroger rek ci li nga xamante ne moom moo xew en tant que témoin moom nag war na ni gisul seen boobee seen bi après da ko daal di gis ci réseaux sociaux yi rek ndax booba mi ngi woon ci ay euh, préparation foofu la ñuy jaare daal di jàll ci journalu l'observateur l'observateur daal di xëy ñu ñun ci xëtam bu njëkk ba tey ci arrestation wu Amady Badiane ak Ameth Thiou coow bi nga xamante ne yee nañ ko ci réewum Sénégal wàllum góor jigéen bi nga xamante ne ñoo ngi leen ciy dut baaraamu tuuma ndax bisu bi nga xamante ne joxante yeen nañ ko procureur bi nag démb moom moom autosaisie ci li nga xamante ni moom moo di dossier boobee daal di leen di woolu ci guddi gi Wally Seck comme niñ ko waxee rek dañ ko entendre ba pare daal di koy libéré mu ñibbi këram waaye ki nii di am méttul cu ak Amady Badiane ba suñu joonu yàlla yu tey ji ñoo ngi en garde à vue ñu tëye trajectoire Fat Ndiaye ma nekk ca diwaanu Fouta moom moom mooy autoru slogan Fouta Tampi daal dinañ koy yëpp fësal euh, ci journalu l'Observateur bi génne li nga xamante ni moom moo di trajectoire am ay étudiam kombaam ak enfance bi nga xamante ni dund ko ba tey jii nii mu nekk jigéen gu mën góor fële na la ca Fouta di xeex loolu ngir li nga xamante ni di Diammi Fouta ak jàmmi Sénégal modification bu code pénal bi tey jii nii ci aljuma bi opposition bi refusé nañu li nga xamante ni moom moo di wàllum terrorisme bi ba tax na euh, projet de loi boobee daal dinañ koy incriminer l'appel à manifestation du m 2 euh, gis nañ ni nag waa m 2 jamono ji takk nañu ba mel ni naanaa rek di xool wala ñuy xaar lan mooy xew euh, fële na la ci diwaanu assemblée ba ñu daal di ñëw rek ci li nga xamante ni moom moo di journal populaire populaire professeur Abdourahmane Sow mi nga xamante ni nag moom moo nekk ci ci COF moom muñ classe directement waa M23 ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa m d euh, mënul concevoir benn yoon ñu xool li nga xamante ne moom moo xew confusion totale la jàpp ni moom la activiste yi du dund actuellement ak li nga xamante ni moom moo di euh, euh, pouvoir bi rawatina ak képp koo xamante ni homme politique nga jàpp na ni daal société civile bi actuellement dañoo réer te duñu accepter jamais que ay benn cadre de personne rek di leen mën ci benn sens unique boo xamante ni ñëpp bëgguñu koo dund populaire ba tey ñëw na ci li nga xamante ni moom moo di actualité du jour. assemblée nationale ni ñuy waxee ak nii war nañoo nekk ca li nga xamante ni moom moo di votu euh, votu loi boobee jëmale ko ci wàllu wàllum terrorisme mu nekk loi boo xamante ni nag liñ ko jotoon a changé bari na jamono ji ñëpp ngi firi seen ay nopp di euh, déglu tax ko ba mel ni naa di xool ba xam boobee loi dinañ ko fa euh, signé am déet. ki nii di Karim Xurum Xaq activist boobee génnoon na ci 23 juin bi fësal boppam waaye feetewaale li nga xamante ne moom moo di 10 ans wu activiste moom nag ñu ñu yëgal démb ci guddik 24 juin bi moom Karim Xurum Xaq jàpp nañ ko ci euh, trois fois njëkk nañ ko jàppee diwaanu assemblée ci côté gris yi dem ba ci autoroute bi daal di koy libéré foofu ba pare ñu waat jàppaat ko fële na la ci place de l'indépendance ba ni ñuy wax ak ni euh, Karim Xurum Xaq euh, mi ngi en garde bi ak ñeneen ñoo xamante ni tegandoo woon nañ leen loxo. Abdou Mbow tamit mi ngi chargé les opposants ci li nga xamante ni moom moo di actualité bi actuellement jàpp na ni daal opposants yi moom euh, dañoo def erreur sur toute la ligne waaye li wërtu wër daal mooy tungu na du teel ñuy nataal tey jii ci bés bi la loi boobe di leer am déet wàllum sport lañ koy daal di jeexalee ubbeeku journalu suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun nag ci Malal Ndiaye ancien champion d'Afrique mu yëkkati ay kàddoom di ko jëmbalee ci kombat bi war dox diggante Modou ak Balla Gaye cinquante 52 Balla Gaye booy Niang 2 kàddu yi nga xamante ni daal moom ancien champion bi wax na ko ci combat royal bi mooy que ni Ama Baldé actuellement dafa nekk ci tànk bëgg a utu pat ba waajuram bu góor di euh, Falaye Baldé ba tax na lépp lu mu mën ak lu mu mënul dina ko def ci combat boobe waaye bu jëlee loolu def ko ci bopp bi à 100 pour cent mën na ñëw ci erreur ba ñàkk li nga xamante ni moom moo di combat bi Modou Lo tamit nag. Euh, tàmm na di tasante ay nekk di leen daan ñu ci bari ñoo xamante ni tey jii euh, ñu mag lañu ci làmb ji Modou Lo tasante na ak ñoom daan leen bu jàppee ni rek tey jii li ko nit ñi débarqué mooy gàttul njoolul ba pare am na jëmm bi ak dayo bi ba ku mu tasanteel war a mën a def ci yow bis Modou xarañ loo bis bu defee loolu ci boppam rek dina def erreur ci combat bi en tout cas conclusion bi nga xamante ni moom la def ci combat royal bi du lenn lu dul cinquante cinquante ndax malgré tout daal gis na ni kii nii di Ama Baldé nit ku am jom la ci làmb nit ku mën a bëri la bi dee lutte pure da ciy dem bu fekkante ni bagaar la tamit da ciy dem Modou Xarañ Lo la même chose mën na lutte pure mën na bagaar te ku ci nekk daal boo moytuwul boo bëggee sa jàmm ku ci nekk na nangoo accepté li nga xamante ni moom moo di kurfe ñu moroomam te ku nekk war a moytuwaale ku bu fatal ndax jàpp na ni Modou Xarañ Lo yor na ay coup yoo xamante ni bu la ko dóolee rek boo moytuwul say mbokk ñoo lay fekk ci diggu arène bi daal di lay euh, for kii nii di diggante Balla Gaye ak Bombardier nag jàpp na ni revanche boobee Balla Gaye moom moo ko moom ndax Bombardier moom moo ko dóoroon daan ko daal di nangu ci moom li nga xamante ni moom moo di kon royale bi donc Balla gay moo nekk en position de revanche en position de vengeance jëmale ko ci adversaire boobee donc combat boobu combat am la boo xamante ni moom moo ci war a dem à fond digganteem ak Boy Niang jàpp na ni doomu Double Less bi dafa war a jël complètement li nga xamante ni moom moo di ay responsabilité am ndax nag bu ñu fàtte booy Boy Niang donte ndaw la waaye am na ñu bari ñoo xamante ni rawatina ci diwaanu géejewaay boobee am na ñu bari ñoo xamante ni moom Boy Niang 2 na leen li nga xamante ni moom moo di fougue de jeunesse am donc Balla Gaye 2 na def attention bu baax a baax a baax te bañ a benn yoon euh, Boy Niang bu ko defee rek ba tey ci journalu suñu làmb la ñuy desandi ak yéen Max Margan di jàngat combat bi war a dox ci diggante mbay guy gi ak mambal la jàpp ne ne l'expérience face à la jeunesse le combat du ko dàkk euh, combat boobee dina neex lool ndax mbay guy gi euh, pourvu na ci làmb te kii nii di mambal tamit prouvé nañu waaye lenn rek moom moo ci des bu ñu janoo ci arène ba la ñuy xam ni dëgg-dëgg ñoom ñaar ñëpp ay ñaari champion lañu euh, kii nii di Pape Abdou Fall ginnaaw ba ko waa CNG convoqué démb ngir mu yëkkate ay kàddu nag wax lan moo waral mu daal ni CNG moom moo def erreur ci saccage yu am ca diwaanu arène national demoon na wuyu ji démb ca suba ga waaye kàddu yi mu yëkkati ci journal suñu làmb mooy que ni dem na toog ak ñoom waxtaan ak ñoom te ku ci nekk euh, comprendre nga sa moroom juboo nañu te benn coow amul ñu daal di koy tëjee ak journalu Les Arènes euh, ba tey mu ñëw ñun ci combat bi war a dox ci diggante Sa Thiès doomu Double Less ba rokk Balla Gaye bi ak Moussa Ndoye euh, kii nii di suñu papa Bécaye Mbaye di ko jàngat jàpp na ni daal Sa moom moo nekk Ronaldo wu arène bi ndax d'après 15 sorties yi nga xamante ni def na ko ci cent de réussite te benn kombaam nag ëppul une minute mu daal di daan adversaire am malgré que sax euh, deux défaites yi mu am deux défaites yi mu am kii nii tamit di Moussa Ndoye am na technique am na physique mën na boxe am na tamit encadrement bu baax ba tax na Sa Thiès na def attention bu baax a baax a baax euh, ci Moussa Ndoye bés boobee bés du ko dàq mu nekk deuxième jour jour Gaston production euh, ba tey ci euh, journal bi ñu daal di koy tëjee ci face to face bi war a dox ci diggante tafaatin ak booy ñaar 2 dimanche la war a doole Pape Thialis nag daal nay fixé ay règle ngir amal face to face bi ginnaaw bañ ko njëkkee woon a tëgg mu rate ñu daal di ñaan yàlla mu jaari ci yóbbu ak jàmm dimanche ginnaaw suba bi la lépp diggante Tapha ak Niang 2 bataille verbale lépp ñoo ngi koy xaar ci boobu face to face ba tax na mbokk yi li lañ leen indiloon seen xibaar revue de presse jaajëfal yéen ñëpp ñu ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu jox leen dig daje bu suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf mbokk yi.